li ñuy leeral sax sa wàllu ak ay bëri tubaab yi teg. loolu daa am na moom benn bagage. loolu am 843 39 42 du gis ngeen lii yaa ngi Thiès non maa ngi Dakar maa ngi Dakar chéri foo mënti nekk. waaw waaw rokki naa mel ne xooñ ñi maa la ko wax de xooñ da xooñ. ndool xooñ ah Mbaye. man nag ma xas ma sax ma waroon naa wax lañ la daa ma woowee bañ a xale ndax am na dama <laughs> tuh beda main lembar-lembar tuh beda-beda ya sama lembar-lembar sama lembar-lembar main lembar-lembar main asal di kan Mana jelas kan kayak doang nggak menunggu Unan bu kar kay doon. Dam nekk xal ci bu la ya. Lu bu kan bu dam sa gennel koy nan mbay lambar lambar. Sama lambar lambar Mami mais bi ma juddoo bi ma juddoo la ñu xaaj suñu kër gi suñu suñu kër gi fi mu nekk nii ñetti mbada la ñetti mbada la ñuy teg. kii kan la doom kii defoon na fa accident boo xam ne yaram bi ay weñ la kii yaay ma jug takk bu dëgg nga xam ne yaay moo am solo ci doom ba mu xat damaa teel sa téléphone fee dem di liggéey dem doon ni maçon wala mécanicien góor day dëgër waaye da topp ci téléphone yi bii rek mu tàllal téléphone yi bii rek may tàllal téléphone mais ah. c'est que man c'est que man mami xew bi démb li mu risee. sa kanam rek 843 39 42 eh dama ni boo jëndee sama tissu bu ko jox macha allah tubaari kàll ku munul ñaw ndax nee naa la tissu yi tissu yoo xam ne xuus maa ñàkk la 843 39 42 sa ngeen jaar. ñëw nga dangaa 843 39 42 ngeen koy ree bu leen ko ree. waaw ñëwal. ko doomam di jaar. 843 39 42 42. dama bëgg nga nga nekk arbitre. 843 Rokina sama waa ji tubaarikàlla macha la fa chérie de Thiès kaay Thiès kaay benn dëkk. dama démb si TikTok mami. Thiès nee si TikTok mami nit ñi naan mami. concentré wu nit ñi naan concentré wu sur toi et de travail dañuy fen dañoo bëgg a fay. yal naa fen. an ay concentré soit yow da nga am classe eh da nga am classe mami comment dire mami la mami ak ak bëgg yaayam mami da nga am classe mami ñoo eh da nga ñu wala dul yow avocat yow avocat yow barke Serigne Fallou Oubousso maa yow bi ma ci téléphone bi avocat yow dara la tuuti dara la nga ci internet bi rek nga top di internet bi rek afaka bu tay yañ ci adamo gëna suma soko kere li ci tiktok bi mi sa téléphone ay avocat muslika jam muslika jam xale bi la dom yërëw ya, ma la kay duul maa la nampal sama rek ji tubari kala sa bàjjë la ñuy jooy noppeekunu ay man li ba jam la avocat bi mami xol xex bi xex ba ngi ni mami mami xex ba ngi ni ça va 39 mi ngi nii ah, jël na ko mami bees bi mami xees baa ngi nii xoolal verte bi yow mami yow ki jël kii bi wax am na verte huit cent quarante trois sa neuf quarante laa gis nga seytaane de ak bëri doole di lëx lëxee sa tubaab seytaane ba tey bàyyi yàlla baax na man xool naa ko ba sol sama de man ngay xool maa ngi man gisuñu ko balla waaw boo ko tamit eh, kii la woo na la ah. 9000 la jar 843. mi ngi woote de mi ngi woote de. non Amady Badiane la Amady Badiane moo yor affaire yi. Badiane Sakro moo yor affaire yi. 9000 la 9000. wii sama waa tim doy nan waar de. bu ma leen noqee. mais mami mami c'est que yow da ngaa wéetal game bi. gém bi dina gën a wér bu dee man ak man rek la dara tëgguwul seytaane ngeen doy ngeen waar journaliste yi mën ngeen duwul fumiste ngeen doy ngeen waar mën ngeen jax sama ngeen seen bokkul ma la seen bokkul ma la wur na sëñ Tuba yal na yàlla musal képp mais man yàlla filmé naa xeex bi mais dugaluma ko man sama yoon newul ci ma am di man ma di 43 la 39 42 77 9000 9000 lay jar 843 39 42 la 9000 la 5 mètres tubaarikàlla maasàllaa bu samedi boo amee xew bu la neexee solti bu dimanche boo amee xew bu la neexee solti bu dee am nga tour de famille nga am xew ngeen sa tibb simm mbapat loo xaw la rek tubaarikàlla masàllaa xoolal ci sama yére boo dee ñëw ci ndoket yu rafet ndoket yu jekk tubaarikàlla masàllaa 843 39 42 xool leen bi mami daa teral yaayam xool li rafet na nag 843 39 42 843 39 42 gis ngeen ko nii am na bu la am na yëpp waaye yow def ko 8 000 yow de yaa ñàkk xel yow lii nga xam ne wii neuf mille yi ma koy wante mën a dem sangu ba set seen seen rafet doxaan ci xale yi di tëdd ci xale yi ndax sa yaram bi ñëw amoo vitamine amoo calcium demal nga doxaan ci xale jàpp ci xale yi amoo vitamine amoo calcium amoo dara war a dem do sangu ba set doxaani takk jabar nee leen nga dégg papa sa morom yete Cees yëpp ngi dégg papa mbay nga topp kaawu ndakaaru yi rek ndakaaru kaa yi du fi jeex ndax nee naa leen tànk mu ni maa ba faaxu ndakaaru da am dam leen rek am moo tax bëggoo wax si affaire yi si teewul sama jàmm affaire ya xew du samay affaire chacun pour soi Dieu pour tous ah ku ne na nga la jënti say affaire ku ne say problème doy na la maa ngi nii sama morom yi jar nañ ba ku ci ne yaa ngi dégg yaa te gu ma yaay loolu rek problème la bàyyi ma la jënti loolu day xaar la la ban bagatelle la ban mami oh, dafa mel ne dafa mel ne. non damaa xam ne li may lijjanti ak li may soxla nit ak li may geer nit ak wala lu may wax problème bi sama problème doy na ma maa ngi nii jànku naa ba am 35 aw ma jëkkër. Ah. waaw dama xool nu ma defee mbay am jëkkër ju baax. macha allah di fanaanoo ba guddi jotee ñu ba nga ma tël ma ba sama xel mi ñëwaat. ah. ma bëggoon ne fii di lijjanti ay wax di duul. ay ah, yow alma may man mbay xam nga lan la génn sama place mën ngaa toog doy nga waar sonal nga ma fan yi torop wur na nag pourtant nag ki ki xëy démb dafa wax wax ju rafet ci yow 43 39 42 xam nga lu ma wax dani ma mbay seetaan naa la yàgg moom i Cobra li bu ko dugal ci yooyu bi lay loolu la wax engagé loolu la wax démb barki yàlla dama ne ko engagé kaay kaay nga wax ma ko tooñ mu ne ma li nga defoon mami Cobra nga mu bëgg a def lu ma ko nangu waaw fan la fekk ah? bilaay ma ne engagé yaa baax. ah ah. ay xarit lañu. seytaane moo ñëw rek fu mu xajul la. mami mami ji indi bu la boobu noonu. yaay bu la ban na. bii bii yaay doom mu dugg jëkkër ak jabar mu dugg lu ne mu dugg yal na ñaan la mu. ok waaw kenn xamul réew mi li ci nekk. léegi xam nga nee nañ 843. li nga wax ne naa envoyé turam dëgg dëgg. tur boo koy dugal. 843 39 42. non mami nag c'est que. damaa tiit borom kat yi. yow bul ci tiit. bëgg borodé du jeex. 843 39 42. allo. man fu ma. may mi damaa bëgg nga atte. ñu ne ñi importé borom borom 36 mami mami wax ko mu woote waaye ma wax li mu bëgg. mami wax ko bi laaj bu woote waaw borom 36 mille wooteel nga wax li nga bëgg woon 36 mille yow mi dugal 36 mille yi. gis nga 843 la 39 42 tubaarikàlla macha allah 9000 lay jar 9000 gis ngeen. gisuma message am. maa ngi ruy sa maa ngi xaw ma am raa ngi ruy sa soleil 9000 lay jar 5 mat 9000. jeex na presque li ci des waa bés bi. moom doo jaay ay verre ay verre dox na de temps yi. ay ay lunette lunette. dañoo wax ne nit ñi dañoo gumba. <laughs> waaw ça va. waaye xoolal borode bi. si temps yi ñu la fa yaatu ay verre 843 la 39 42 9000 francs ay verre la gars yi di sol ah la xale jigéen di sol léegi am na bii tamit yi mooy brodé yi diis yi démb xew ba am na ko sol verre yu la def yow aboucar mamadou kobra yaa génn xeeb jàng lu ma la lii tàllal ko bees bi mu xool xoolal xoolal may ba ma pare na ci réew mi na ci tiktok xoolal may bi mu ba ma pare nekkul ci live bi waaw 9000 lay jar 843 39 42 yow day mel ne nekk dañu teg si kawam moom la defee. bees bi nga jël buñ la bii rafet na de. bees bi ñu la wan sànq. yow xanaa doo jëkkër toggal sa jëkkër. waxuma loolu sa yoon nekkul ci man. waaw surtout nekkul ci man. nga réew. jëkkër da dafa jafe surtout ma bu baax. am na yow nga am bu baax di xoolal li mu solo xoolal lii. kii day liggéey yow kii day xëy di encaissé million ba ki dem ba ma soxlaa ñu dugalal ma xaalis nag moo ma dugalal sa. presque deux millions ay quelque kii day liggéey kii fawut moo ko dugal ak xaalisam. da nga neex yow da nga dof xanaa. sañse wu bi beneen tar sañse. ay ñun taluñu sañse xaalis la ñu wut. bi mujjee tàllal bi mujjee tàllal mami tàllal yooyu mu xool waay. ay waay ma dem li ñaa ngi woote ci suuf rek naka mu capturé bi mu bëgg yónnee la wéef bi tamit man dama bëgg a tëdd de mami ma gëm nañ ci torop de ma nelaw ma nit di ma woo di ma yee rek doomaraam yi mën nañ duul bëgg nañ kaar yow avocat man Kabra yow boo moytuwul sa bopp déedéet yow boo moytuwul sa bopp nga nekk ci kaay di duggalante ko génn nga mel ne jaanu ñàngoor yow bu ma dëggee sa xol di nga maytu kaay yeeg yooy nga topp di wax ak wax ak dafa ko dindi rek dinaa la noq de nga mel ne yalt nii nga mel ne fit yow mënoo toog benn place maa ngi ni di live suñu ba tey dugaloo si woo numéro nga topp kaa yi te dara réeru la ci TikTok avocat bi nag bu fekkee avocat Mamy Camara nga wax bu dee avocat gare la nga muus ma wax man ma xam maam de nee na man musuma gis di topp kaa is yow mën a basa kaa yi ngay topp di wëndeelu wëndeelu mel ne garabu yoo xale bi wëndeelu nga ba mel ne lu ma bindatul gisatuma fan fan nga ne xaw ma fan nga ne damay live nit ñi may dimbali di ma dugaloon numéro bi waaw man li ba jàmm la ah a waa rocci jam yaa fekke lii munas defini di ma dugalal fali naa nee na mëy fafa faramaare nee na mëy yi man daal sama timbal gisuma ci kenn ah parce que kaa kaa nee nañ mëy ni men a fi ne di ma dimbali ah man da rocci jam damaa neppa sa xonti di sama tur ba mu set defal na ñeneen ñi dëndal ba mu set di def ci avocat partout man musuma gis lii kaay la ñuy topp dañoo tal dara taluñu dara ña nga ca kaaya rek man na man maa waaru mi ngi ci kaa yi kay man xëy ba ma ko gisulee ci sama laaj bi laa xam ne mi ngi ci kaa waaye ku ma faar foo nekkoon fal ndeke yaaram borom sama waa ni tubaari kàlla macha allah jéeg bi ci këram nopp nag tubaari kàlla macha ah? xew tey de. Ah. tey tiktok bi lu ci lu ci am rek sa loxo bi ak loxo dama atte fekkee naa xeex ma mi ma atte. yaa xam ne 843 39. Mawo, mawo ñu wara até ne nañ até parce que li jëmul kër parce que xex bu metti à fa amoon démb. xeexul kan la yàq. 843 42. am lu des kenn dootul sa yaay kenn du 843 39 42 9000. ku fi sa yaay ñu attaquer la des gis nga mii nii 9000 lay jar 843 la 39 42 9000 francs. waaye ili da koy tere. fii kenn fi déggee dara la. ba pare dafa am finition bi. lii boo ko jëndee boo demee ci pape mi ñamal ko luy tàgg te du fay. amal jàpp dina dina ji sa du baax tubaarikàlla macha allah. 843 39 42 la ilaha illallah. sabay la fa yaa 9000. 5 mètres la 5 mètres la fa yaa 9000 moo mën a jëlee fii nga fi doon jël bàyyi moo du kan.

843 la 39 42 gis ngeen dafa yaay lépp lépp dafa rafet gis ngeen yii moom daa oyof nooy rafet rafet ci yaram boo ñëwee def sa rob bu baax man a safar moom eh, eh, soo dudu goon ay yow eh. dama changé ma fii démb daa am woy bu woy bu dugg benn woy bu bees bu di génn solo <laughs> gaa bi maa ko génnee sama man maa génn lu ne du ma topp ka xale bu ma tànn damay na soxoon ah non loolu man rek maa ko am non. mbay ba jàmm coono na ma ko ci ba jàmm. moom it nag moom it nag temps yi da ngaa rafet temps yi da ngaa rafet barke Rasulullah. macha Allah dama yàgg rafet dama talu woon dara nekk ci. moom it nag da ngaa rafet barke yàlla xale yi li moo tax Oustaz Modou Fall samp ndëndam démb. gis nga dem lu mu nee na soo bëggee mu takk la ñaareel. waaw waaw na ba pare tey da koo estati. ii. <laughs> Fall ragaloo yow laa bëgg. woo na ma démb waaye dëggal ma connexion. ñaata. 5000 pare. waaw dama laaj ba pare. xaar Salim Salim envoyé eh man léegi damay live damay jaay. te damay mel ni dëgg. bi ma defee soog fii la toog di jooy. kooku yéene wu ma dara ay sarax yaa ngi dugg ci àll. fan dem de fu ne yaa ngi dugg fa doomaraam yi ay duuloo ko koy yóbbee. ko yóbbee yow. 843 39 42 9000 lay jar mes chéri 9000. xoolal zone bi looy lii ku ko def marinière hey. maa mun a jaay lu rafet. téléphone bi fay na. indi beneen téléphone bi. waaw lan moo tax yow. man kii dama ko bëgg. samay rab sax da nga jékki-jékki rek moto daanu. mais mën a mbàgg jël moom am na mooy mbàgg bàllay sa bëri lu mu laal lu mu laalul. loo leen laal griffe la ci dëkk. Ahmadou seen maam. moom laa. mami je prends d'accord madame Lo wooteel.

843 39 42 kooku gën a saytaane moom kooku ni ma ko bëggee woon mais nekk setan saytaane la nit doo def noonu nit doo xaajale man dama ko bëggoon ndax dafa baax il était il était très gentil te ba ma gisee gis nga góor doo dugg ci yenn détails ak ci yenn sët lobby yi da ngay fekk jigéen mi def dara sax nga yedd ko ne ko déedéet du nii du nii woo koo ko ne ko du nii nii gis nga ni da ngay defar ku bëgg jàmm yàlla may la jàmm ku bëggul jàmm doo am jàmm man bëgg ma góor bi di ak di sot mais mami démb démb kii na euh, kii na ñaari euh, bi bi kii demee. sama yoon newu ci laajuma la laajuma la la xew démb mbay laajuma la sama cot ci démb. 843 39 42 samay la fa yaa 9000 francs 843 39 42. 843 la 39 42. bi ñuy nekk xale ñoo <laughs> 843 39 42 gis ngeen lii dafa rafet brodé waay lii jekk na waay yee lii rafet na waay i sa baal ya ama ñoo fastandaay si sa torino bëgg moom Cobra man ngay wax sa baal sa baal sama ma ne alifin jaa man ci kumba 843 39 42 man daal la depuis na la woo 843 39 yonent bi yàlla gërëmu la ci yonent bi gërëmu me ko métier journaliste métier du kat la lii moom dara baax war na yàlla dara baax tàngal xolu nit ñi ak tooñ rek ak dugal kaa ak wax rek kii wax fii kii wax fii ah am nga duukat bi dama duula naa ma yaa fi dàq kaa lan laa kaa man ko soog bi dama jeexee booba day jaay di wante sama dugub tamama dara jaay naa jaay sama gémé gi mel ne booru gaal tey ji maa ngi waroon a dem jëli sama bagage yi xaaj bee ñëw ma ko naa bàyyi ba yeneen xaaj yi ñëw yéen xam nga yaa ngi mu am biti toog ci liggéey amaa ah, fi daaxal taaxal moom nokk la nga xam ne aw ma jot ñëpp a ngi may mere naan damaa fuuy léegi fekk fuuy ma liggéey bee ma jàpp sama bopp bi dafa stress bu nekk sama bopp bi bari fukki biti gën juróom ñett bu ne nga bëgg koo sax sama mu fees ah bu ne ngay daw di daw di daw di daw rek di daw rek nday saan noof mi rek lay jar noof mi maa ngi doog a nit wax ma ko nag li ma wax nii. maa ngi doog a nit wax ma ko. ah non non mais mbay mi liggéey bi baaxul xanaa xamoon na loolu nañ ko fee rey daa mooy ñaanu ndayo bu dimbali accident boobu daa ngaan accident am kese la accident am kese ñaanu ndayo la dimbali ak lu baax loo defal sa ndax nday siribe ci yow resol boobu bu daggee rek nday dindi ko daal di tubaari gàdda doom bi daal di yuuxu ngeen gis nga fi doon bu la sa ndayo si dee bu ñuy dagg ko doom nga dégg xum ngeen ñaan hmm, day dëgg la téye konoon di nga déedéet bu ñëw ndax àq la. dig na daa daa doon leen feet ji feet la. barki sëriñ Bamba Mbàkke keroog boo waa keroog sa yaay àllu Cees su la dugg. ndax àllu Cees bu Cees kenn yebu leen. waaw bu sa yaay dugg waa àllu Cees sa yaa ngi ci bàq. waaw nan waxam ci dëgg. 843 39 40. kon kaa bi bàyyi ma bàyyi ko. damaa ne woon toppi kaa tey mais. dëgg yàlla moom ma. waaw da nga ma ko envoyé WhatsApp. envoyé la. lim la waxoon da lay boole. non non da nga koy envoyé whatsapp nag boo bëggee ñu xam ko. léegi bu si kanamee bu si kanamee bu si kanamee. woo si kanamee woo ma